سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله عن جميع المؤمنين tabaarakallaahu mbokki jullit yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad julli ci ay ñoñam ak i saxaabaam seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndao moo dellu ak yéen ci seen émission alhidayatu min alkitaabi wa sunna tabaarakallaahu ñu leen koy defal nag ànd ci ak tabaarakallaahu biraan ak suñu jigéen tabarakallahu soxna xadijatu aja ñimma ba mbokk yi ñun ñu ngi nekkoon ak yéen ci histoire sayidina abi bakrin radiallahu taala anhu sayidina abu bakrin comme ni leen ko waxe woon يننتبي صلى الله عليه وسلم يلا كوكو باخي مو ام جارين لول تي الاسلام نيك دغر لاي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم يلا يمبالال كوكو ندخ ميغي تيغون سوني بارام تي ما دعوت احدا في الى الاسلامي إلا كان عنده فيه كبوة يننتي صلى الله عليه وسلم لنا كما هو وجه الإسلام رك نينا خلات نغسوغ غم بمدس أبو بكر متعنينا وليس كل آه، وليس كل العجب أن محمدا ذكر له التوحيد ودعاه إليه فاستجاب له بل أكبر العجب أن محمدا قص عليه حديث حراء والوحي الذي نزل عليه فلم يتردد في تصديقه مني كيمتان نكولتيني nekkul صلى الله عليه وسلم sallallahu alayhi نينا شي توحيد نيك ديكو وار فوني مو جلفا مانام خلات بوكو ورا كونفينكر ولا بوك موي واخ شي اي كيمتان توحيد بوكو كونفينكر موم سيدنا ابو بكر ديدت مانام سيدنا ابو بكر دا فا ميلون ريك buum gu ñu raccantal yonent bi amul benn jafe-jafe ci woo ko rek mu dugg ci lislaam waaw daa mel ni rek mbuus moo xam ne dañ ci def ndox te kenn tëjul gémmiñ ga nga ubbi rek na ndox ma di tuuroo ci lu dul benn jafe-jafe noonu la Seydina Aboubacar yombalalee yonent bi sallallahu alayhi lislaamam moo tax ñu ne kéemtaan bi du yonent bi woo ko ci ay xeetu waaraate yu kawe pour convaincre ko déedéet daf ko nettali rek xadiisa xira xira maanaam la xewoon ca xuntuma ak ni alquran wàcce ci moom nee na loolu rek la ko yonent bi sallallahu alayhi nettali ne ko dama nekk ci xunt mi am jëmm ju ma dikkal jëmm jooju nag yàlla ko yónni mu di jibril malaaka la ba mu ñëwee daal mboq na ma ñetti yoon di ma jàngaloo ma ne ko man dey jàng du sama affaire ndax xeet wi mu bokk farataaluñu am am njàng dégg nga nee na mu wàccee ci man lu ñuy wax alquran ne ma iqra bismi rabbika alladi xalaq loolu la yonent bi nettali seydna abubakar mu daal di tuub daal di gëm kon loolu lu jara taxaw seetlu la ci ne seydna abubakar dafa mel ni yàlla daf ko waajal ba nga xamante ni maanaam xaw na sax ko yonent tabaarakallaahu ndax sori woon nag cedd lool ni ko yonent bi sore woon muy dund ci péncu màkk te bëggul seen dara gëmul xërëm yi lu ñaaw ci seen aado ak seen pénc bëggu ko woon moo tax bi lislaam ñëwee rekk mu daldi cay teel a ndax xam na ni ki ko ci woo jikkoom rafet na te diine mënul nekk lu dul jikko yàlla mënul yàlla du yónni itam lu dul ko am jikko looloo tax mu daal di gëm moo tax ñu ne li nga xamante ni moo lay wan dayo sayidna abubakar fokk nga xam ne kaana min xukamaai makka alladina yarawna cibaadata al dégg nga bokkoon na ci ñi ëpp xel ci màkk ëppoon ca xalaat ba moom gisoon na ne xërëm yi ñuy jaamu ak ndofte la te itam wa annahu kaana yacrifu min amri muhammadin wa amaanatihi wa sidqihi wa rujxaani aqlih moo tax lam yadaal fi nafsihi mawdi mawdian lirriba fi ma qassa alayhi mimma raa wa samia moo tax sina abu bakrin xamoon na mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dëkkandoom la woon xamoon na ne ku wóor la ku dëggu la ku rafet xel la nee na looloo tax nag ba mu ko nettilee lii rek mu daldi wamatu سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فهو لم يقف من تأييد الدعوة عند التحدث إلى أصحابه وإقناعهم بها قلناه بمقامي يننتبه صلى الله عليه وسلم دقل الإسلام mosul taxaw nak lulul set lu dëgëral diine ji nga xamni diine ju bes la lu ko yok ak luy tax mu sax fi ba te du fi mu jël diine ji nak di waxtane ci barab bu mu ne ngir ñamuy togal mëna xam jëriñu diine ji ba dugg ci looloy sabab mu duggal ñu bari ci l'islam ndax mom bis ba mu gëmé rek la jóg nag sol dàllam waaw jëfandikoo ballixu anni walaw aaya commencé di jotal nag woote bi ni ko yonent bi di jotale moo tax nga dégg ci waxtaan wi weesu punkal yooyu nga xam ne ay saxaaba yu mag lanu moom moo leen dugal ci lislaam walam yakfihi an يبذل للضعفاء والبائسين من رضا نفسه ووداعة خلقه ما يعزيهم عما كان خصوم الدعوة يرهقونه يرهقونهم به من أذى وتعذيب جسنا نمبيك من مكة نيغا خمني قمنا نيونت صلى الله أي لومبون نخ في مبوك يولين منا آر أمو نيو amuñ fi benn daraja ñu di ay baadoola di ay lompoñ te gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ni ñu leen doon mbugalee ci biir màkk di leen sonal ngir gëm gi ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seydna aboubacar nag daan na jëflanteek ñoom ci jikkoom ju rafet ci wàcce gu mu wàccee boppam ak jikkoom yonnoo yi dégg nga ba sax loolu yóbbu woon na ko muy dépenser alalam ngir kum ci mën a xettali nga génn ci njaam mu xettali la wa kaana yastafi bi hadihi nafaqa ulaika adduafa walbaisina mimman hadaahum allahu ila alxaq dégg nga mu daal jël alalam nag jëmale ko ci ñooñu nga xamante ni ay baadoo yoo xam ne ñu ngi ci makka tabaarakallaahu amuñu mbokk mu leen jàppale te yéeféer yaa ngi leen di rey ñii ñu leen di tëj di leen xiifal ñii ñu leen di mbugal xeetu mbugal yu metti Seydina Abubakar keroog ba mu tuubee wax nañu ne li mu yoroon ci xaalis bu mu denc àggoon na ci arbauna alf dirham muy ñeen fukki junniy dërëm ca alal jooja maanaam ca waxtu woowule loolu nag mu jële woon ko ci bénéfice su commerce wante yàlla dogal gannaaw ba nga xamante ni dugg na ci lislaam mu continuer commerce am commerce bi di génne bénéfice bu bari tabarakallahu ban ne mu gàddaayee dem madinatul nawara léegi nga gannaaw ba mu fa defee fukki at mujj na alalam boo ko dajalee ba mu jeex dafay daal di nekk xamsata alaf dirham dégg nga juróomi junni dërëm wante moom seydna Abubakrin alalam jooju yépp denc ko woon déedéet daf ko génne di ko dépensé ci yoonu yàlla faqad dahaba fi sabili daawa ila alxaq wa daawa li diinihi wa li rasulih mhm. faqad dahaba fi sabili daawati ila allah wa daawati ila diinihi wa li rasulih kon seydna aboubacarin alal jooju nga xam ne daf ko dépensé ci yoonu yàlla naka daf ci doon jot ay jaam yoo xamante ni gëm yàlla tax na ña leen moom di leen mbugal dénga di leen mosal xeeti mbugal yu metti loola tax ra'a abu bakrin yawman bilalan alxabashi قد ألقاه سيده على الرمل في لظى, في لظى الشمس ووضع حجرا على صدره وتركه ليموت لأنه أسلم ولم يزد بلال وهو في هذه الحال على أن يكرر أحد أحد ينسي أبو بكر دخنا بنيو خمل كونيكو أم نجام بنيول بنيو وخ بلال أمي يموكو موم دفتوب نك دوغو الإسلام wante Umayya day mu ngi koy mbugal mbugal mu metti ndax mu ngi ko yóbbu ci beeñ bu tàng ci diggu njolloor fi jant bi gën a tàngee mu summi ko dóor ko ba yaramam naaj mu tëral ko ci naaj wi jël xeer wu rëy teg ci kaw biir bi wante bilaar moomu day dañul di baamtu baatam bu siiw boobu te moo di ahadun ahad kenn ki ñu war a jaamu daal kenn la te duma jaamu leneen lu dul moom Seydina Abubakarin ñëw ba teg ci bëtam daa di wax Umayya ne ko xanaa dooma ko jaay Umayya ne ko aha ñu waxaale Seydina Abubakarin jënd ko Umayya ne ko kii dey bañ naa ko bañ goo xam ne ñàkk na solo ci man ñàkk solo goo xam ne doye dina ci man doye di goo xam ne soo amoon ñetti dërëm sax ma jaay la ko soo amuloon dara sax ma fax may la ko ndax ni mu ñàkkee solo ci man ak ni mu doyedee ci man seydna abu bakarin ne ko kii dey am na solo ci man am solo goo xam ne rëy na ci man rëy goo xam ne fonk naa ko fonkeel goo xam ne soo ma laajoon àdduna ak li ci biir su ma ko amee danaa la ko jox ngir jënd ko ci yow kon umay yaa ngoog mu ngi doyadal bilaal ndaxub julit la waaye seydna abubakarin mo ngi nonu mom mo ngi magal bilal ndax bilal ab julit la hakada halul muslimin min qabl julit ñu njëkk ñi ni leen meloon donte manam wuté won nañu ci xeet ndax kii xeetu nit ku ñul la kii du xeetu arab kii weex kii ñul ba noppi kii di jaam kii di sang wante bok bi ñu bokk lislaam di ay jullit tax na kenn ku ne tabarakallahu jàppe sa moroom na nga jàppe sa bopp kenn sañutula xool bi bëtu jaam ndax jullit la tabaarakallaahu ñu daje ci lislaam di ay mbokk loolu moo doon melokaanu jullit yu njëkk ya Seydina Abu Bakrin daal di lëng Bilaal tabaarakallaahu mel ni moog Bilaal ñoo bokk ndey ak baay lislaama leen jur kay ñoo bokk ndey ak baay léegi nag jullit mooy rey mbokk jullitam jullit mooy doyadal mbokku jullitam jullit mooy lor mbokku jullitam bu ñu xoolee ci seydna abu bakrin génne na alal ju bari ngir génne mbokku jullitam ci xat-xat loolu la alquran di tuddee fakku raqaba laa uqsimu bi hada albalad wa anta xillun bi hada albalad wa walidin wa ma walad أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة مودي فك سمبوك جلد amee bor bu mu mënta fay nga fayal ko ko fakku raqaba mooy fekk sa mbokku jullit amul dépense nga fexe ba wutal ko liggéey ba mu mën ca amee dépense loolu mooy bi gën wala nga dindi ci sa poos jox ko lu mu mën a dépensé fukki fan wala weer wala sax at boo ko mënee yooyu yëpp dafay bokk ci fàkku raqaba fàkku raqaba fekk sa mbokku jullit di jaam nga génne alal ju bari jënd ko suñu borom subhaanahu wa taala nee na ku bëgg a yegsi ci moom nee na fokk nga dindi obstacle yi dox sa diggante ak moom te yi ca gën a gaaw nag mooy xettali sa mbokku jullit seydna abou bakrin radiallahu anhu xetili na bilaal jënd alal génne alal ju bari jënd ko yéeféer bu bon bii di umayya di xas bilaal di ko doyedal ba ne jarul sax ñu koy jënde ñetti dërëm ndax du jaam bu am solo Seydina Aboubacar ne ko solom ëpp na loolu ba boo laajoon àdduna ak li ci biir ma jox la ko kon nag jullit dafa war di défendre mbokku jullitam ci alalam di ko défendre itam ci deram buñ ko doye dalee kon Seydina Aboubacar am na ñaari tuyaaba am na tuyaabay jënd Bilaal libéré ko ci njaam libéré ko ci mbugal yu metti yooyu ñu ko tegoon am na tuyaaba itam tabaarakallaahu sangam di ko xas ngir nit jullit la moo tax mu jàpp ne doye dina bon na yées na Seydina Aboubacar yëkkati maqaamam kon Seydina Aboubacar mu ngi noonu inda dalika ishtaraahu Aboubacrin wa aataqahu kon nag léegi jaam amatul ba ñu koy goreel waaye am na ñoo xam ne luyas def na len jam dépense def na len jam doxinu jamono def na len jam ba nga xamanteni bu ñu xëyee duñu noppalu kon nak soxla yoyu képp ku ko xamal sa mbokk ba libéré ko ca def nga lu ñuy tuddee fakku raqaba kon nak yow mi wom la ci mbokk gi del bayi xel ñi nga tané ci sa di len jappalé ndax loolu dafay yokk sa maqaama moo xam jàppale leen ci dépense la moo xam jàppale leen ci ñu faju moo xam jàppale leen ci dëkkuwaay yooyu yépp dafa bokk ci yi dimbali borom alal ji ci alalam ngir mu mën cee jaamu yàlla wa uddiba amir bnu fuhayr فاصطفاه أبو بكر li لأغنامه واشترى كثيرا كذلك من الموالي الذين يعذبون رجالا ونساء وأعتقهم سيدنا أبو بكر يمول ci Bilaal amoon na jaam bu ñuy wax Amir ibn Fuhayra moom itam jënd na ko daal koy goreel daal koy embauché mu koy sàmmal ay gàttam mu koy fay jënd na moom Seydina Aboubacarin ay jaam yu bari yoo xamante ni ni ñu doon mbugalee Bilaal noonu leen leen doon mbugale mu jënd leen goreel leen ci ay góor nag ak i jigéen mu mel ni Seydina Aboubacarin nii nga ko gisee ku fonkoon yonent bi la te di ko bàyyi xel daan na nekk garde corps ngir bañ dara lor yonent bi sallallahu alayhi moo tax ñu ne Seydina Aboubacrin mësul nangu ku lor yonent bi mësul nangu sax ku ko wokk téere bi ñuy wax Ibnu Hisham wax na ne bokk na ci ay wiñ mën a fàttaliku Quraysh def ko Seydina Muhammad ci teewaayu Abu Bakrin te ba léegi histoire di ko ñaawlu mooy ba ñu dajee ca xijra ba ca peggu Kaaba ga ñuy jëw yonent bi sallallahu di wax ne moom day mu ngi ŋàññi suñu diine di ko ayibal di xas suñu yàlla yi am ñu wax ne li koy faj daal mooy ñu jëflanteeg moom saa bu waxatee ci suñuy yàlla lu safaanu ñu dal ci kawam fa baynama hum fi dalik طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد anta alladi taqulu kada wa kada noonu ñuy waxee dig jëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak mer di wax ni mu ngi xas seen yàlla yi di dofloo seen xel yi di ayibal seen diine ñu ne loolu daal li koy faj rekk mooy rokk mi rokkaani saa bu waxatee lu ñaaw ci suñu yàlla yi ñu dal ci kawam faf yonent bi ne tëll ci seen biir ñu daldi tëb attaqué ko ñoom ñépp commencé nag naan ko yow yaa fi wax nangam ak nangam ak nangam yow yaay xas suñu yàlla yi yaay ayibal suñu diine ne du diiney dara yaay ŋàññi yàlla yi nga xam ne ñoom lanu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa weddiwul ne leen ana alladi aqulu dalik loolu ngeen wax yépp maa ko wax maa wax ne seen maam yi ak seen bàyyi ay dof lañu woon ndax defar yet ba pare ne mooy sa yàlla loolu ku ko def ab dof nga jaamu loo xam ne du dégg du wax loolu ku ko def ab dof la te seen diine baaxul ndax du diine jikko am benn waay bu jóg fekk yonent bi kaala gi mu kaala woon sallallahu alayhi wa sallam waa ji xoj ko ci kaala gi ba sang bi xawoon na ñàkk bakkanam ndax waa ji def di borom doole di boroom kàttan daa di tëb rekk daa di تبارك الله بول نياري كولوم بوميا ولا كالامغا دادي كو تاي خوج با يونتي بي صلى الله عليه وسلم سن لول فقام ابو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبقي ويقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ndeysaan di ko baamtu rek a taqtuluuna rajulan an yaquula rabbi allah seydna aboubacar daal di jóg song waa ji kook yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax waa ji dafa bett yonent bi bettaay goo xam ne na mu ko xojee ci kaala gi bu seydna aboubacarin jógul woon rek musiba mën naa am seydna aboubacarin jóg jàpp waa sànni ko fële ne ko nag a taqtuluuna rajulan ndax dangeen ngeen a bëgg a rey waajoo xam ne dara nekkul bàkkaaram lu dul an yaquula rabbi lim ne yàlla mooy sama boroom lool rekk ngeen ko bañe ba tax ngeen koy fexeel bëggu ko rey daldi jooy nag jooy yu metti ndax ku woyofoon xol la tabaarakallaahu te lépp lu ñu def yonent bi mel na ni tabaarakallahu moom lañ ko def wala ñu def ko njabootu boppam cofeelam ci yonent bi jéggi na dayo mu daldi di jooy ngir li ñu doyadal kilifaam doyadal ki nga xam ne moom la yàlla gën a bëgg ci kow suuf nga xam ne suñ borom subhaanahu wa lu mu bind jëmm joojoo tax mudi sayyiduna muhammad nga xamne ku fi séddu ba am cër ci mom nga ko amé kuñ fi fonk ci mom len la fonke sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama taslima biñu gisé gisee abubakrin ci caractère bi biñu ko gisé ci yiw gi ak yar bi tabarakallah ñu xamné def nañu erreur su man sarafu anhu ñoom ñëpp ñu ne wëlbét daal di dem ñu ne loolu ba tey histoire mu ko bind ci caay-caay goo xam ne Quraysh defoon nañ ko ngir taruk noone ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa بيغا خمنتني دفنا الإسراء والمعراج فقد تحدث محمد إلى أهل مكة بأن الله أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه صلى هناك وسخر المشركون من هذا الحديث دينغ ينينتي بمجوغيتي rañaanam dafa waxtaan ak waa mag ne leen biig day yàlla yóbbu na ma Jérusalem ci guddi gi ñëw naa ba ca jàkk jëma julli fa jiite fa yonent yépp yéeféer yi nga xam ne ñoo ko waroon doon ko déglu commencé di ko reetaan naan waa ji daal moo mën a wax la ca gannaaw dëgg diggante Jérusalem ak Màkka maanaam dox bi waxuma la sax ñaari fan ñetti fan ñeenti fan waaye weer sax jeexalu ko kon moom naka la fi mën a jóge ci guddi gi dem Jérusalem jóge fa yéeg ca kaw dem ci asamaan yi dellusiwaat wa saxiral mushrikuuna na hada al xadis sikk nag commencé di dal ñu bari ci jullit ñi nga xamante ni jotoon nañu tuub ñuy commencé am xel ñaar naan waa ji mbaadu raba ko jàpp yee dégg nga ñu bari faf murtat la leen mooy mënuñu gëm li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jógee ci benn guddi Sénégal masalan dem fi amerig dellusiwaat siwaat tabaarakallaahu te bët setul waxuma sax dem fi amerig waaye yéeg dem ci aw kaw asamaan yi dellusiwaat siwaat loolu wax dëgg yàlla ko fi waxoon pour ñu gëm la dana jafe moo tax ñu bari ñu tuuboon loolu tax nañu ñu tubbi ndax dañu jël mbir mi teg ko ci xel te ci diine nag am na foo xam ne xel konte fa waaw ngëm rek moo la fay dimbali waaye boo bëggee jëfandikoo sa xel dangay ngay daal di weddi yàlla moo tax fii loolu rek nga fiy jàng mooy am na ci diine loo xam ne soxlawuñu ci sa xel sa xol rek lañ ci soxla waaw mooy nga gëm ko amaa nag boo ko bëggee teg ci xel fa mu lay yóbbu mooy wedd yàlla moo tax ñii dañoo mujj weddi yàlla moo tax Seydina Aboubacrin bi nga xamante ni wax nañ ko ne ko sa waa ji day nee na dem na Jérusalem ci guddi gi te ñun bu ñu yoree gëléem jëm Jérusalem bala ñu fay yegg fokk mu mat weer waaw bu ñu waree jógee Makka jëm Cham ale bi weer la retour bi itam weer la kon daanaka ñaari weer mooy tukki min al masjid al xaraami ila al masjid kon nag moom num ko mën a defee ci benn guddi ñu ne ay yazhabu muhammadun zalika fi laylatin waxida wa yarjic ila makka wartadda kathirun mimman aslamu loolu tax na ñu bari daal di murtad nee nañu daw nag dem ci abu bakrin ngéeju woon ci moom pour mu weddi ndax gis neen occasion boo xam ne dana tax seydna abu bakrin weddi ñu kontaan lool ne ko amee solo nii gëmini yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñu ko bayé rek diine ji da fay daldi jëm kanam te bo saganul suñu xërëm yi dootuñu fi amati doole kon nak suñu pexe ñun wa màkka moy fexe ba abu bakrin weddi ñu daw andil ko xabar bi deng ذهبوا إلى ila abi bakrin ngir li ñu xam ci ngëmam ak àndam bu dëgër ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa dakaru lahu ma yaquluhu an il isra ñu nettali ko nag li nga xam ne yonent bi waxtaane na ko ci jàkka ja ci dem bi mu dem Jérusalem ak yéeg bi mu yéeg ci kaw wante Seydina Aboubacrine bi nga xamante ni xabaar bi wax nañ ko ko ni leen xabaar ba jaaxale moom jaaxalu ko ndax koo xam ne yonent bi dafa ñëw sallallahu alayhi wa sallam ne ko Seydina Jibril ñëw na fekk ma ca xunt ma ne ma ab yonent nga yàlla la yónni wàcce ci mën man alquran sans xalaat amul benn sikki sàkk mu daldi gëm ca saasa kon kooku itam boo ko indilee xabaar bu mel nii tabaarakallaahu la ko daloon ca bu njëkk ba rekk moo koy dalaat ci bu mujj bi te mooy na mu gëme woon bële rekk lay gëme wat bii moo tax kéemtaan nekku ci متى قال أبو بكر وقد تولاه الدهش لما سمع من إنكم دنگ تكذبون عليه قالوا بلى ها هو ذاك في المسجد يحدث الناس قال أبو بكر والله لئن كان قد قاله لقد صدق سيدنا أبو بكر لن waaw loolu mu leen wax dangeen koo gëmul loolu muy nettali ci jàkka ji dangeen koo gëmul ñu ne ko xam nga ne gëmuñu ko kay Seydina Abubakarin na leen wallahi giñ naa ci yàlla ne su fekkente ni lii ngeen fi nettali moom moo ko wax giñ naa ci yàlla ne li mu wax dëgg la jóge na Makka dem Jérusalem jege wat Jérusalem yek ci kaw delu ci wat te bët setul lolou gëm naa ko ñu ni ko lutax muni innahu la yukhbiruni أن الخبر لا يأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه فهذا أبعد مما تعجبون منه mu ne koo xam ne bis bu ne mu indil ma xabaar bu jógee asamaan ñëw ci suuf ci benn waxtu te diggante asamaan ak suuf moo gën a sori Jérusalem ak makk benn mu ñëw ci waxtu guddi walla waxtu bëccëg ma koy dëggal ca loola gëm ko ca lool duma ko ca weddi lu toll ni tarfatal ayn kon na ko laa koy mën a weddee ci lii te moo gën a yéeme bu ñëwee ne ma yàlla kat moo ne Seydina Jibril na ñëw Seydina Jibril jóge ca kaw asamaan ñëw ne ko yàlla nee na iqra bismi rabbik wala yaa ayyuhal mudaththir wala yaa ayyuhal muzammil mu di alquran mu jox ma ko ma koy jàng te gëm ko te alquran jooju fa mu fa mu jóge moo gën a sori fi yonent bi jóge ak fa mu jëm fa alquran ji jóge ak fii mu jëm si foofaa gën a sori te dëggal naa ko ci loolu kon nag naka laa koy bañ a dëggale ci lii seydna abu bakrin radiallahu taala anhu seydna abu bakrin radiallahu taala anhu bi nga xamante ni wax na leen loolu mu ni leen waaw nañ leen dem nag ma xool li ngeen wax ndax dëgg la wala déet jaa abu bakrin radiallahu anhu ila almasjid واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس وكان أبو بكر قد جاءه فلما أتم النبي صفة المسجد الأقصى قال ابو بكر صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله ويومئذ دعا محمد ابا بكر بالصديق سيدنا ابو بكر عندك مبولو مومو bëggoon مودي weddi taxoon ñu indil ko xabaar bi ak lam leen wax ànd nañoo ak ñëw ci jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nettali tabaarakallahu nit ñi xew-xewu rañaan gi nee na seydna abu bakrin taxaw déglu ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa yonent bi nettali ba mu jeex seydna abu bakrin ne ko sadaqta ya rasulallah lu tax mu ne ko sadaqta ya rasulallah wax nga dëgg parce que dans Abu Bakrin commerçant la woon daan na tukki di dem Cham di marchandise ak di jaayi foofu te comme mas na dem Jérusalem te ni yonent bi nettalee Jérusalem na noonu la mel te dem yonent bi wax nga ko ci musu ko waye daf ko deugal ci lu mu xam yonent bi musul dem Jérusalem mosu fa dem sayna Abubakarin mas na faa dem ñi nga xamanteni ni mosoon nañu dem Jérusalem ak ñi demul ñep ñu nga tok ci jàkka ja yonent bi di len netti li jàkka ja na mu mel na Jérusalem mel masjidul aqsa Seydina Aboubacrin moom kon comme nit ku honnête la tabaarakallaahu mu ne yonent bi nii nga ko waxee day noonu la mel ndax dem nanu fa te ku naafequl ci ñun xam ne nii nga ko waxee noonu la deme bis boobu nag la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee as-siddiq la laajee kañ kan moo tuddee Aboubacrin ababakarin kan moo ko tuddee as-siddiq neel yonent bi bu la laajee kañ lanu ko tuddee as nga ne keroog ba mu dégloo yonent bi sallallahu ca jàkk ja mu nettali mbiru rañaan gi ca la waxee yonent bi ne ko sadaqta ya rasulallah wax nga dëgg yow ki yàlla yónni yonent bi ne ko yaa aba anta siddiq سيدنا أبو بكر وكلمة أبي بكر في الإسراء تدل على إدراك تام للوحي والرسالة ñu ne Seydina Abu Bakrin suñ boroom moo ko defal ak jagle mel ni dafa mooñaale ci moom mu dégg wax yu dégg li ñuy tuddee message nga xam ne bu nekkee bu nekkee ku yàlla yónni daf koy teel a xam daf koy teel a xam xam nga am na ñoo xam ne eh, aajowul ñuy dugg maanaam ci école pour way ndax dañuy judduwaale mën a way am na ñoo xam ne aajowul ñuy dugg ci école di jàng football ndax dañuy judduwaale mën a football yonent bi sallallahu alayhi wa boo gisee ni mu tafee sidna Abu Bakrin ci wetam ndax xam na ne am na ay may yu nekk ci Seydina Abu Bakrin may yooya bokk na ca mooy yàlla daf ko waajal ci mu dégg waxyu dégg risaala moo tax musul nangu Seydina Abu Bakrin sori ko waaw mo nangu Seydina Abu sori ko tax itam suñ borom subhanahu wa tànnal ko yonent bi mu nekk àndandoom ngir mu mën di ko jàppale tabaarakallaahu ci responsabilité bu réy bi nga xam ne tegu na ci loxoom moo tax moom Seydina bakrin mu mujj rekk mel ni ko shajara at tayiba athluha saabitun wa farcuha fi sama waaw garab googu nga xam ne yaxludu atharuhu ala aldamaani bi fadlillah fala sultaana lilzamaani alayhi wala yati alayhi nisyan moom seydna abou bakrin moo tax seydna abou bakrin radiallahu taala anhu bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na jullit ñi pour ñu gàddaay dem Éthiopie Seydina Ousmane gàddaayoon na dem te ku ne xam na ne bokk na ci saxaaba yu mag yi waaye yonent bi mosul nangu Seydina Abou Bakrin gàddaay dem Éthiopie daf ko réservé ci wetam tabaarakallaahu ndax mooy ndëgërlaay li nga xam ne moom la yàlla teg ci wetam mu wettili ko lool ci woote bi ak li daawa bi di metti ak li ci nekk ci lor ak yépp bu yonent bi masaana gis seydna abu bakrin ci wetam diis diis yu bari dafay daldi wàññeeku moo tax ba ñuy gàddaay di dem Éthiopie bàyyiwu ko mu dem daf ko wax na toog ci wetam kon Seydina Aboubacrin mu ngi noonu commerçant la woon wante ينفق جل وقته في صحبة الرسول وفي حماية الضعفاء الذين أسلموا سيدنا أبو بكر مجنى xaw a mel ni dafa woyefal commerce am ngir ñaar ngir li ëpp ci ay waxtoom mu nekk ko ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa ak itam défendre lompoñ yi nga xam ne ay niiw ji doole lañu tuub nañu ñu leen di rey di leen sonal moom Seydina Abubakar moo leen doon aar di leen jënd ba pare di leen jox ñuy lekk nee na itam mujjoon na mu xaw a woyofal commerce lu tax ngir jàppale yonent bi ci message bi di woo nit ñi di leen dugal ci lislaam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa eh, nangu mu sori ko ba gis ngeen sax ci gàddaay gu mag gi ku tàggu yonent bi di gàddaay mu ne la demal tabaarakallaahu kenn rekk la téye ci wetam fas yéene ànd ak moom muy seydna abu bakrin radiallahu taala anhu kon mu mel ni yonent bi tànnul rakkam di seydna ali ibnu abi taalib déedéet jox na ko beneen fonction ca moo di màkka tey day jël nañ décision bu rëy te moo di boom yonent bi jël bakkanam daje nañ ci seen assemblée waxtaan ci benn kàddu lanu ñu d'accord mooy tànn ñeen fukki ndaw yoo xam ne ñoom ñëpp ci famille bu mag la ñuy bokk su ko defee ñu songandoo yonent bi rey ko bu ñu ko reyee banu hashim duñu mën a topp deretam tabaarakallaahu ñeen fukki famille ci biir màkka su ko defee alal rek leen mën a laaj te bu boobaa bu ñu dajaloo fay ko ñu waxtaan ca loola ba daje jàpp guddi goo xamante ni nag ndaw ñëw ñu ñëw nañ ca buntu yonent ba sallallahu alayhi wa di ko xaar pour mën def loolu nga xamante ni waxtaane nañu ko te moo di boom koo xam ne tey bu ñu ko boomoon amaana man mii danaa lekk tey lépp loo xamante ni waruma ko woon a lekk te moo di mbaam xuux ak yi mel ni moom dana naan lépp loo xam ne waruma ko woon a naan te moo di sàngara danaa am beneen melokaan ndax dama dul jot ci lislaam ki nga xam ne tey moo wasaare ak njub ci àdduna bi ba baaxal kilifa yu bari ba ñu mën a roy ca kilifa yooya yonent bi nga xam ne tey moo baaxal suñu maam ja Abdul Qadir Jilani yonent bi nga xam ne moo baaxal tabaarakallaahu suñu maam ja Cheikhuna Ahmed Tijani radiallahu taala anhu yonent bi nga xam ne ci moom la Cheikh Omar Fouti baaxe ci moom la Cheikh Ahmad Bamba baaxe ci moom la Cheikh Sidi Hadj Malick Si baaxe yonent boobu buñ ko royoon keroog ci guddi googu mbaax gi falay yem du yeg si mukk ci ñun saay saay soosu yàlla mottiliwul seen pexe ndax rëccal na ab yonentam ne ko gàddaayal nga dem keroog yonent bi rakkam la bàyyi ca kaw lalam muy sayidna ali bnu abi talib ne ko wuutuma fi ndax am na ay ndénkaane yu ma war a delloo te bëgguma ko yóbbaale boo xëyee nga joxel ma ko daa di dem nag ci kër abubakarin fas yéene ànd ak moom kon jëmm jooju ca gàddaay yu njëkk ya ca éthiopie nangul woon moo dem ndax daf ko bëggoon a réserver mu nekk ci wetam ci gàddaay gu mag gi itam bëggul mu dem moom dong ni omar ibnul xataab demee ni xamsatu bnu abdul mutalib demee ni sayyidina Ali ibn Abi Talib demé déedéet yonent bi dafa tan sayyidina abou Aboubacrin pour mu ànd ak mom mom la borom bi wax ne idhuma fil fi iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha maana koku modi sayyidina abou Aboubacrin radiyallahu taala anhu kon mbok yi jëm jooju nga xamne bala ñoo wax ne sayyidina Omar mom la yàlla dëgëralee l'islam nanu wax ne seydna aboubacrin moy ndëgër lay lu njëkk li yàlla dëgërale l'islam moy fondement bi nga xamanteni tabarakallah ba legi ci l'islam taxawé gannaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu tegandi fofu suñu baram sen mbokk sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi may nuyu nak di ziar bu baax al badra gay tabarakallah ci man se Zeng mang koy balu haq diko bal haq di ko ziyaar bu baax xam naa ne nag daan nañ def koor gu ne ñu gisee waaye ren nag yàlla dogal na gisee wuñu ci jëmm waaye nag tabaarakallaahu xol yaa ngi gisee maa ngi koy nuyu di ko ziyaara di ziyaara rakkam yépp tabaarakallaahu ak i kilifaam di nuyu itam njuga deer tabaarakallaahu foofu ci marché zeng tabaarakallaahu moom itam ñu ngi koy ziyaar bu baax di ziyaar itam Xasan Saar tabaarakallaahu moom itam foofu ca tabaarakallaahu marché Zinc di nuyu waa marché Zinc yëpp te di leen ziyaara seen mbokk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndao moo leen doon defal waxtaan wi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.